CEDEAO di kuréel gi nga xam ne ne moo ëmb fukki dëkk yi ak juróom yi bokk ci Afrique soowu jant yaakaar naa ne kenn rek a ci bokkul muy Mauritanie dafa am lu nuy wax conférence des chef d'État et de gouvernement mooy ne président de la république yi am nañ kuréel kuréel googu moom rek moo mën a ne lii la ñuy def ci ECO li mu waxoon dafa ne woon bu 2020 jotee ñi nga xam ne ne pare nan man nan bokk éco 2020 ñëw na il faut que ñu xaar ñu xayma 2019 bi at mi dee li ñuy wax critère de convergence mooy natt bi nga xam ne dana natt ne ànd bu mën a ne ndax pour ànd bokk xaalis da ngeen a war a jeglente ay mbir ci mbiru ndax gouvernement ba la muy euh, li mu am ci déficit budgétaire bariwul mooy euh, mbaa yamale ay mbiram ci dépense ñaareel ba taux d'inflation ni njëg yi di yokke ndax yokkewul lu ëpp ëpp ndax dëkk boobu bor ya du bor yu bari lool ndax dëkk boobu yor na lu mën a faye li muy commerce ak bitim réew ndax mi ngi leb banque centrale am ay critères la yoo xam ne ne yun teg la donc il faut ñu xayma leen bu at mi dee xool li ñu waxoon mooy ni dëkk yi pare mën na dem waajal bokk éco waajal boobu nag li mu laaj mooy ne lii ñu am ñun ñu seet li nga xam ne ne jaratul di ko séq ak France ñu dindi ko li nga xam ne ne jàpp nañ ne day dëgëral sunu ànd pour que bu dugg ci éco duggee ci ci anam bu rafet ñu denc ko li nga xam ne ne séqoon na kook France te ñu ne loolu jàpp na ne jaradu ko mooy trésor français moo doon denc suñuy devise dama koy baamtuwaat devise bitim réew lay ne yéen képp kun fi mayoon tey 10 millions de dollars fukki millions de dollars banque boo dem mun ne la demal sa yoon il faut nga yóbbu ko bitim réew ñi nga xam ne ne mën nañ la ubbil compte dollar donc ñun devise yi nu yor bitim réew lañ koy denc ngir ku jënd ji bitim réew ñu jox la liy fay sa fournisseur képp ku gañ a xaalis bitim réew aussi da am obligation jox ñu ko ñu denc ko ñun noonu la ñuy fonctionner fii ci yëkk réew yi bokk CFA kees gi benn la lu waaye gañe ci devise jox ñu ko lu mu soxla ci devise jël waaye bitim réew la war a ne am nan fanweeri conte ak ñaar bitim réew euh, ñaareel bi euh, France amoon nañu ko daan toogal ci suñuy kuréel toogal goo xam ne ne du toogul toogaayu lu dul rek bokk ak ñun waxtaan ci waxtaan yu rafet muy suñ conseil d'administration muy comité bi nga xam ne ne mooy toppatoo taux d'intérêt yi toog waxtaan ñoom ñu indi seen i xalaat indil ñu seen xam-xam ñu bokkandoo yorandoo yëf yi euh, loolu itam jàpp nañ ne pour waajal dem éco ndax comme loolu dafa nar a dakk mieux ñu dakk ko tey loolu tax ñu dindi ko ñetteel ba leeral bu ci war a indi la mooy ne franc CFA day continuer tudd franc CFA ba bis bu ñu bokkee ñun ECO te pour ñu bokk éco il faut que njiitum réewu waa CEDEAO toog décider na éco day commencé tant que commencé wul CFA moo fi continuer waaye am na ñaar yoo xam ne ne denc nañ ko ci li ñu séq ak France ndax danoo jàpp ne eh, ab toogaay bu dëgëree rek daa fekk ne bang ba nga toog dëgër na eh, loolu moom lu leer la doo toog ci banc bu dëgër nag ñu ne la déedéet euh, demal toog ci beneen banc li ñu jàpp mooy ne pour waajal fa nu jëm am na ñaari mbir yoo xam ne dañ koy denc benn bi mooy li ñuy wax parité fixe mooy suñ digganteeg euro loolu dañ koo denc ndax nag yanuwul maanaa ñuy def leneen alors que ñu ni neen la donc garder nañ parité fixe bi nu amag ak euro aussi longtemps que éco amagul bis bu éco dee am dafa am nun ciy duggee ku ci nekk ak sa doole ñaareel ba danoo denc li ñuy wax garantie de change bi mooy lan euh, France li mu séq ak ñun du leneen lu dul ne ñu bu ngeen manqué devise ma jox leen ko ñi ngeeg juróom-ñetti junniy milliards ci ay ci CFA ci xaymay CFA am na ñu mën a ne déedéet euh, soxlaatu leen ko déedéet comme da ngay jëflanteeg bitim réew te bët ba lay xool mooy xam nim la xoole bët yi ñuy xoole bitim réew mooy ne réew lan yoo xam ne ne ñun lu nu yëngal gaaw na li nu daaneel gaaw na buñ lay lebal loolu danga koy xoolaale ndax am nga am nga am nga ku la ginnaaw taux de croissance li wóor mooy ne xaymam réew at mu ne nu muy doxe lu war la ndax li tax mu war ndax da ngay xam ndax dëkk baa ngi dox Sénégal 2019 bin xayma 6 pour cent la croissance yokk mooy ne juróom-benn yu ne ci téeméer wàccoon na par rapport ak 2018 waaye dana yéegaat 2019 li koy waral souvent mooy ne bu ñuy xayma taux de croissance li ñu koy def dañ koy teel a def ndax budget mënoo ko def te amoo taux de croissance politique monétaire mënoo ko def te amoo taux croissance donc aux environs du mois de juin juillet def nan xayma yëpp bu nu ñëwee nag ba at moom mu ñu ko xayma woon dee dañuy xoolaat li ko waral rek mooy ne entrepreneur yi mënoon nañ ñu wax ne lii lan nar a def mujj ñu ko def amoon na lu yaakaaroon ci seen doxalanteeg réew mi doxu ko am na lu yaakaaroon ci bitim réew doxu ko coronavirus a ngi nii kenn déggu ko fi woon dana am ñoo xam ne dana wàccee seen taux de croissance loolu mooy infl euh, kii prévision de croissance da nga koy def fa nga ko tolloo ak information yi nga am. boo demee ba ci yàgg nag mën na ko yëngal croissance tëm bu nu xeeb 6 pour cent croissance économique boo xoolee ci Afrique ba mu jeex état yi bokk see CFA ñoo fi gën a rëy croissance ci ñi fi gën a rëy croissance lan bokk Sénégal 6 pour cent pendant 4 5 pour 5 ans ngay def 6 7 pour cent mësu fi am